alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma bacd ayyuhal ixwatul mu'minuun noo ngi sant sunu boroom tabaaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi tabaraka wa taala dolli jàmm ak xéewal ci saxaaba yonent bi ak képp koo xam ne topp na leen ci diine lislaam di dénk sunu bopp di leen dénk itam ragal sunu borom tabaraka wa ndax ragal yàlla mooy yóbbal bu mag ba mooy yóbbal bi nga xam ne su amee béréb muy réew ma dana yéwén jaam ya dana yéwén tey dana baax ëllëg dana baax ragal yàlla mooy yoon wi nga xam ne mooy tax nit ki am ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala mbokki jullit yi bokk na ci ngëneelul sunu borom tabaraka wa taala moo di xéewal gim nu xéewale diine lislaam muy diine ju yam joo xam ne ëppul ci dara waaye yéesul itam ci dara bu dee ci atte yi muy atte noona la ëppul yéesut bu dee ci teggin yi muy jàngale ak ngëneel ya noona la ëppul yéesut kon alhamdulilahi ci xéewal gu réy googu muy xéewalug yam bañ ëpp bañ a yées yam googu nag bokk na ci yam gin war a gën fàttaliku ci jamono yi nu nekk muy yam ci wàllu jëfandikoo alal yam ci wàllu jëfandikoo alal borom bi tabaraka wa taala na jaamam ñi nga xam ñoom la gën a fonk mu tudd seeni melokaan ne ñooy ñi nga xam ne suñuy dépassé duñ ëppal waaye duñ yéesal duñ ëppal waaye duñu yéesal ca digg ba la ñuy nekk suñuy fere seeni fere du ëpp du yées képp kuy xool nag li jullit yi di dund tey rawatina noonu ci suñu bërëb bi nu nekk dana gis ak wuute ak loolu lool lu ëpp ci nit ñi bu dara nekkee ci seen loxo bu ñu amee dootuñu xool fu ñuy def dañuy yàq rekk rawatina lañu am su fekkee ne dañ koo amee ci yoon woo xam ne yoon wu gaaw la woo xam ne sonnuñu ca buy dem duñ xool sax ci anam yu muy demee moo tax fàggu ci lislaam dafa war a doon lu jaar ciw yoon ndax su jaaree ciw yoon nit ka dana ca sonn coono boo xam ne su ko tëyee du ko yàq maanaam dana ca def la nga xam ne moo ca jaaru dañoo bëgg nag bu amee itam lum sakkanal sakkanal bu mu li ko war na ko def bu mu itam na def lu baax ci dimbali ñi nga xam ne dañoo aajowoo waaye nag bum ëppal ba toog itam loxo kese mbokki jullit yi loolu ak jiital la ci nu xam ne aj ci boppam ak njariñ yu bari yi ci nekk daf cee bokk njariñul yar nit ki ci nu muy dépassé alalam aj ci boppam dafa làmboo njariñ yu bari ni ko suñu borom tabaraka wa taala waxe ca aaya ba li yashhadu manafia lahum bi mu ne wool nit ñi ñëw ñu ñëw aj si def ne suñ ñëwee danañ fi fekk seeni njariñ danañ fi fekk seeni njariñ kon njariñ yooyu day baat boo xam ne làmboo na lu bari yar nit ki ci nu muy fàggoo alal ndax lu lew lay jiima wut ngir mën caa aji su ajee ci lu lewut aj ga du am njariñ kon ab yarak ñi foofu ci mu góor góorgóorlu fàggulu lew man caa aji su demee bay aji itam mu xam fa muy dundle ak nu muy dundlee maanaam nu muy dépassé ba ba muy del siwaat lépp tegu ci aw yoonam kon kooku ab yar la ci nu muy jëfandikoo alal yar nag ci nu ñuy jëfandikoo alal yëmul rekk ci waxtu aj waaye nit ki moo xam ci biir aj gi la moo xam gannaaw aj gi la dañoo bëgg mu yaru ba sori yàq borom bi tabaraka wa taala nee na wala tubadir bul yàq inna almubadirina kaanu ixwaana shayatin nee na yàqkat yi ñooñu ñooy mbokki seytaane ñooy mbokki iblis képp kuy yàq nee na mbokkum iblis nga ndax iblis loola la bëgg borom bi nee bul jël sa loxo ngëpp ko ba doo jox kenn dara waaye bul tàllal itam ne rek ku soxla na jël toog yor loxoy kese bu ëllëgee nga toog faf yow di yalwaani kon bul sarxe tey bu ëllëgee nga yalwaani nekkal ca diggante ba mooy loolu kon borom bi tabaraka wa taala nee na bu leen yàq ndax yàlla bëggul ñi nga xam ne dañuy yàq wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàq yàqkat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne al mughiratu bnu shuba moo ko jàngale yonent bi daf ne yàlla tere na leen yet yetti yëf bi ci jëkk muy werante wax wax ju amul njëriñ xii la waxaal toog rek ay jataay di wax kii nee na kii nee na kii nee na ci loo xam ne doo ci jëriñu mu teg ca ne wa idaat al maal ak sànq yàq alal yàq alal xam ngeen ne alal ci lislaam doonut loo xam ne jullit bi dañ ne ko sa dunduk àdduna lépp ci alal la nekk loo man lu ne na ko def ci alal ngay fàggoo fu lew ak fu leewu déedéet lislaam dikkiwul noonu dafa bëgg nit ñi fàggu lu lew waaye alal it dafa doon loo xam ne lislaam daf ko fonk boo gisee juróomi yëf yi nga xam ne ñoo moom la lislaam protéger nit ki mu boole ci alal loolu fonk gu mu fonk alal moo tax waaye nag alal ja lew tege ci sa loxo nga xool na nga koy dépensé mu doon lu tegu ci aw yoon te xam ne loolu ngay dépensé dañ lay laaj ëllëg foo ko jële woon ak foo ko defoon kon mu ne sànq alal yàlla na leen ko ba ko ñetteel mu ne sànq na it bari lu ngeen di laaj laaj yu bari yoo xam ne doo ci jariñu moo tax ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na yàq ci lépp booy lekk bul yàq booy naan bul yàq booy sol bul yàq solal lu yem ca la nga soxla ba ci joxe sarax sax sarxe sax daf ne bul yàq ci xadiisu amr ibn shuayb an abihi an jaddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lekk leen naan leen sarxe leen sol leen waaye bu leen yàq waaye bu leen yàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na yàq sax ba ci njàpp mi ngay jàpp bi mu jàppee raxas cër ba ñetti yoon raxas loxo bi ñetti yoon raxas ko tànk bi raxas ko cër yépp benn bu ne ñetti yoon ba àggal dane lii moo di am njàpp ku ci dolli dara nag maanaam boo raxasee cër bi ñeenti yoon nee na kooku yii daje na ci moom ku ci dolli dara nee na daje na ci moom yooyu mooy lan nee na ñi def na lu ñaaw jalgati na tooñ na def na lu ñaaw jalgati na tooñ na kon loolu yàq la yooyu yëpp boo ko seetloo ci biir yàq lay dugg ki nga xam ne dafa bëgg nga yamali yëf yi bañ koo yàq ba ci ndox mi ngay jàppe mu ne la boo raxasee cër bi ñett yoon bu ci dolli ñeenteel bi yoon kon kooku dafa bëgg nit ki mbiram mépp na ko regle fa aajo ja yam mu yemale ko foofu bañ caa dolli dara moo tax al imaamul buxaari mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne dëppoo nañ ci araamal yàq ci am njàpp loola mooy lan mu ne mooy la yonente ba yemoon nga dolli ca daa maanaam ñetti yoon ya nga dolli ca dara moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne boo raxasee cër bi ñaari yoon sax te fekk raxas ba daj na bu la neexee yem foofu boo ko raxasoon benn yoon sax mu set te daj su boobaa bu la neexee nga yem foofu moo tax ci saxiixul Buxaari def na ñetti bunt yoo xam ne benn bi da ko tudde buntub jàpp benn benn daal di ciy indi xadis bi ci des mu tudd ko buntub jàpp ñaari ñaar ñaar ñaar indi ca xadis door a andi buntu jàpp ñett ñett mbokki jullit yi noo ngi dund ci jamono joo xam ne am na ay jafe-jafe ci wàllu am-am ci wàllu alal ba tax na xalaatkat yu nekk di jéem xalaat fan la askan wi war a mën a jaar ba génn ci jafe-jafe yooyu bokk na ci wax yi ma dégg ñu koy wax ja ca gën a ñaaw mooy benn jullit bu yëkkati genn kàddu ci ab rajo fan yii nu nekk wax ne aj gii nu jublu nit ñi war nañ ko bàyyi xel ndax yàq gu baree bari ci aj gi lay amee wane ne aj ci boppam yàq la wax ne lu baree bari ci li askan wi jàng koon teel aji gu bari gi moo leen ko teg kooku wax na wax ju rëy wax na wax joo xam ne ju ñaaw la yoo xam ne ay neen la ci lislaam ki wax loolu xanaa su xamoon dara ci lislaam dana xam ne aj benn yoon lañ ko farataal ci jullit bi ci ak dundam yeneen yi ci des yépp naafila la kon diine lislaam luy digle yàq nekku ci su xamoon dara dana xam ne aj googi kañ ko farataal ci moom mooy ku ko man ki ko man mooy ki am lu ko yóbbu te man ko gannaaw boo xamee ne def na fere këram yépp ba mu daj mu far mu fay ay borom mu door a war ci moom kon kooku lislaam yàqulowul kenn su xamoon dara dana xam ne aj ci boppam sax ni mu doone tukki boo xam ne tukki bu yàlla la noonu la nekk tukki boo xam ne tukki bu jaam bi di fàggoo alal la itam ju lew tukki bu jaam bi di fàggoo alal ju lew ndax li borom bi tabaraka wa taala wax ne li yashhadu manafia lahum nañu dem aji buñ demee fekk fa ay njariñ njariñ yooyu abdullah ibnu abbas wax nanu mooy lan neena na njariñi àdduna la ak alaxira mu ne njariñi alaxira yi mooy ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala waaye mu ne njariñul àdduna yi mooy la ka aji di jële ci lañ fay rendi mu man ko faa lekk ak commerce mam fay yóbbu su demee mu mën faa jaay am fa bénéfice wala mu man faa jënde su ñibbisee jaay am bénéfice kon kooku doonut loo xam ne gàllankoor la buy daaneel koom-koomu réew mukk ka ko man moo koy def te su demee sax bu ko neexee mën na faa liggéeyaale kon kay li jaadu woon kii xalaat ba defe ne aj mooy yàq kooku dafa wax lum xamul waaye bu xooloon dana xam ne li askan wi di jànkoonteel tey nangu nan ne yàq day am na ci cër bu rëy waaye du yàq boo xam ne dafa jëm ci jaamu yàlla goo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko santaane su xooloon dana gis ne li nu kariyeel sunu bopp ci ay xew-xewi diine yoo xam ne nun noo ko ci boole te nekkul ci alxuraan nekkul ci na waaye nun noo ko tëral sunu bopp at mu ne leen ciy fere ci alal di ko ci yàq ci xeetu dugub ak luñ bay di ko ci yàq ci xeetu jur gu ñuy sàmme su fekkoon ne day wax dëgg wala muy xool dana gis ne yàq yooyu moo ëpp fuuf li nga xam ne jaam bi da koy jël dem aje ji ko te fekk lu man la lu mën la ñu farataal ko ci moom benn yoon su fekkoon ne dana xool gis li nga xam ne moom la nit ñi yan seen bopp ci xew yi nga xam ne lislaam da ko simplal lool woyofal ko ñoom ñi diisalal ko seen bopp boo jëloon lu mel ni ngénte ni ko lislaam woyofale bu dee doom ji jigéen reyalub gàtt bu dee doom ji góor reyal ñaari gàtt jëlal yàpp wa sarxe ca lekk ca maye ca soo ko manee soo ko mënul mu ne bàyyil ki ñëw ñu ne la rayalub gàtt soo ko mënee soo ko mënul bàyyil su fekkoon ne nit ñi ca loola lañ yem kon xel du xalaat fii situation bi nit ñi di dund ñu koy dund moo tax luñ xalaat xalaat ci ne yàq gi fee la jóge wala ñu ñoo koy def wala ñu askane ko ña nekk ca kaw wala ñu nekk ca suuf nit ñeet war nañoo dellusiwaat seen bopp xool kenn ku nekk sab rol ci metti metti yi nga xam ne askan wi moo koy dund metti metti yi yàq moo ko waral yàq mooy ndey ji leneen lu cay tegu door caa tegu ngénte ku mën a ku mënul mooy def ku mën a rey benn gàtt ñu ne la reyal nag foo mën a jëli jiw nag nga kurkur yi dem wuti ko ay bor topp la ngay liggéey ay weer pour fay bor yooyu ak ceet ñëw ñu ne loolu la ñuy ay saraxa ci dëj nag ay ñetti fan ak juróom-ñaari fan ak juróom-ñetti fan ak ñeent fukki fan ak at ma bu dellu seetee nga continuer ti te loolu lépp lislaam santaane wu ci lenn yooyu moo yàq alali alali jullit yi moo ko faagaagal su fekkoon ne kii wax wax ju mel noonu xool na ba gis lii xew ci yoo xam ne nit ñi ñoo koy demal seen bopp ak ñàkk a faale gi nga xam ne nit ñi dañ koy ñàkk faale luy yàqu su fekkee ne dañ koo tudde ni loolu yi alali buur la wala alal ju ñëpp bokk la léeg-léeg nga dem ci biir ab ministère ci boppam wala béréb boo xam ne liggéeyukaay la boo xam ne dañ ne fii alali réew mi li ñëpp bokk la nga gis benn robine boo xam ne lu tuutee ci yàq loo xam ne mën nañoo woo nit bu daal di ñëw defar ko léegi ñu bàyyi ko semaine ñaari semaine weer muy xel ndox ma di jàll di dem ci mbedd ma yàq googu yi nekk ci boppi nit ñi te seen xal xalaatul ne li nga romb mu doon lu ñëpp moom ni ngay defare la ca sa biir kër noonu nga ko war a defare ñàkk yëg-yëg googu ci li yàq soon koom-koom ci la bokk làmp yuy tàkk guddi ak bëccëg ñu bàyyi ko muy tàkk léeg-léeg ci mbedd mi nga koy gis léeg-léeg fonctionnaire bi nekk ci bureau moo xam ci société lay liggéey wala ci gouvernement bi wala ministère la muy téléphoné ci loo xam ne it tey boppam la te wóor na ko ne dafa xaraam su fekkee ku xam dara ci diine la it tey boppam joo xam ne jotewut dara dara ak la muy liggéeye mën a toog di téléphoné fu ko neex ku ko soxla sax da koy woo rek ne ko woo ma mu daal di koy woo tàmbali ci alali kan ci alali réew mi li ngay dajeel ci ay oto yoo xam ne ay AD la ñuy taxawal ci réew mi léeg-léeg dimanche lay doon ci région yi ngay daje ñoom aw xew am oto nekk foofa di taxawalu boo xam ne wóor la leen tey du bisub liggéey te alal oto bi alali réew mi la du alali ma sàmba wala alali ma demba te kooku boo demee yorul autorisation yorul ordre de mission yorul lenn loo xam ne ci lay sukkandiku waaye rek euh, fii laay liggéeye oto bi oto service bi naa ko yor doxi ci sama soxlay bopp jaale ji wala doxi ngoro wala doxi lu la neex dawal sa oto boo xam ne moomoo ko alali réew mi la yéeg yëg boobu nit ñi ñàkk a kenn ku ne lu la gën a jege nga nekk ca di yàq na golo di def ci tool nga di ko def ca loola loolu moo jur lii ñu agsi tey la koy fajaat nag du caagi ni mooy toog di xuloo du mooy werante du mooy jiiñaante ñi ci kaw ni yéen a ko yàq ñii ne yéen a ko yàq ñi ne nañ génne ay ndimbal nañ def ni loolu lépp du saafara si saafara si mooy nit ñi delluwaat ci seen diine dellu ci njub dellu ci yor ay xel jox respecté alal ji nga xam ne ñépp a ko bokk ni nga respecte alal ji nga def ci sa poos loo gis muy yàqu nga defar koo gis muy yàq nga jàjj ko ne ko li nga yàq moomoo ko rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk ci service boo xam ne ay nit a nekk ci seen suuf ñu yilif leen war nañoo def ci seeni xel ñu yëg ne defar moo jaadu ci ñoom wante yàq daganut yàq dafa xaraam loolu ñëpp war nañ ko yëgandoo kon mbokki jullit yi régal bi nga xam ne moom lañ jànge woon ci suuratu yuusuf yonent yàlla yuusufa jox joxe woon ko moom mi nga xam ne boroomam tabaraka wa taala daf koo defoon mu nekk ki yore alal ja ca nguur ga ngir xam-xam bu mu xam ci wàllu nu ñuy sàmmoo alal ak nu ñu koy saytoo alxuraan daf nu koo jàngal daf ne jaaduwut su koom-koom sotti koo rek ngeen faagaagal ko mu jeex daf ne sakkanal leen ndax ci gént ga dafa géntoon ne da ngeen gént da ngeen am juróom-ñaari at yoo xam ne da ngeen di woomal lu cay teguwaat mu ne juróom-ñaari at yoo xam ne da ngeen di bekkoor noonu la yusuf alayhi salaam firee woon gént ga buur ba gént mu jox leen nag ay laaye biir yoo xam ne fub jullit toll fu ne war na koo dund moo di li tege ci sa loxo tey jàppal ne dawaamul xaal minal muxaal mbir mi sax rek continuer mel noonu munta nekk moo tax mu ne su ngeen amee juróom-ñaari at yooyu koom-koom jël leen képp li ngeen soxla ci seenub dund ngeen dunde ko li ci des denc leen ko ndax kat yeneen juróom-ñaari at a ngi ci tegu yoo xam ne suñ dikkee la ngeen dencoon da koy faagaagal ba mu jeex tàkk ba tuuta ciy des waaye loolu kañ la mooy su fekkee dencoon ngeen dara su fekkee li nekk ci bopp nit ki nag mooy lu ñëw ren mu faagaagal ko toog di xaar déwén bis bu juróom-ñaari at yooyu agsee te kenn ku ne mu ngi lay xaar ci sa kanam bis bu dalee sa kaw loxo kese ngay yor su ko defee nag ngëlam te ñëw kenn ku nekk di jëñ sa morom ni kii moo yóbbu alal ji ñii ne kee ko sàcc ñii ne lee ko yàq kenn ku ne ba mën a àgg ci ñàkk kersa guy àgg ci sax jàpp ni jaamu yàlla gum santaane gu toll ne aj mooy sababus ñàkk gi nit ñi ñàkk kon jullit yi war nañoo delloosiwaat seen bopp yàlla nu sunu borom tabaraka wa taala déggal sunu diine te delloonu ci nu jàpp ci bu wér ci sun dunduk àdduna ak li nga xam ne mooy baaxal sun ëllëg ci àllaaxira allahuma aiz al islaam wal muslimin wa adil al shirka wal mushrikin wa dammir aadaa ad din allahuma farrij hamma al mahmumina min al muslimin wa nafis karba al makrubin waqdi dayna an al madinin washfi mardana wa marda al muslimin allahuma la tajal la tajal addunia akbara hammina wala mablaga ilmina wala ila annaari masirana wajal aljannata hiya daarana allahuma astur awratina wa amin rawatina waxfasna min bayni aydina wa min xalfina wa an aymanina wa an shamailina wa min fawqina wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain wa aqim alsalaa